information. biennale nag euh, dafa doon exposition boo xamante ne nii exposition bu mag la boo xamante ne nii day am chaque deux ans fële ca mën nañ wax nag sax Dakar Sénégal gépp lay am mais dafa am ay exposition yi ñuy tuddee off exposition boobu ñuy tuddee off nag moo waral tey suñu exposition ñun fii si euh, région bu Diourbel boo leen duggee ci saal bi di gis ne am ngeen fa luy tolloog ci quatre artistes ñoo xamante ne nii ñoo fa nekk di exposé donc exposition bi démarré na depuis le 23 la ñu démarré donc le 15 incha allah le 15 juin mooy doon vernissage bi donc gis ngeen fa ku mel ne Awa ñu koy tuddee la moussoreuse donc moom ci moussoor lay liggéey. maa ngi euh, nekk entrepreneur di defar ay musóor depuis 2016 commencé par YouTube fii nii Sénégal laa commencé actuellement donc maa ngi Bruxelles euh, nii maa ngi ñu ngi nii centre culturel euh, régional de jurbel ma fay def sama off ak yeneen artistes mais man nag maa ngi def ci benn musóor bu ñuy tuddee fiitu donc musóor yi may jaay nag maa ngi koy jaay un peu partout dans le monde Sénégal laa commencé jigéen ñi nga xam ne. ñoom dañuy liggéey amuñu jot jigéen ñi Sénégal yi mën nañu musóoru waaye dañuy bëgg jàng modèle ya nga xam ne day ànd ak seen jamono comme ñu sol seen pantalon wala ñu sol seen robb ba ko liggéey jee mais tamit suñu bëggee dem xew ñu musóor musóor bu gën a rey donc man dama ñëw ma yombalal leen mbir mi ma jàngal leen musóor ñu mën ko ñu mën ko def euh, di seetaan sama vidéo YouTube yi donc bi ma commencé vidéo YouTube yi après ma créé sama site internet donc ma liggéey musóor ba nga xam ne dafa tudd musóor ma ndax dañ doon aw musóor ma musóor ma boobu dañuy jël rek sol ko donc musóor bi man ni ma ciy jógoon mooy que ni euh, mu nekk nit ku ñuul nit ku weex bépp jigéen fépp mu mënti nekk mu sol musóor bi sans que mu complexe ci et que ñu mën ko ni ngay mën a jóge nga jël sa tet teg ci sa perruque nga war a mën a jël sa musóor sol ko sans complexe donc euh, ak site bi et puis ni ma maa ngi liggéey entre Bruxelles euh, ak euh, dakaar donc Diourbel aussi ndax man fii laa soqeekoo fii laa juddoo fii laa màggee jigéen ñi fii dañ koy jënd lu bari maa ngi koy jaay waaw WhatsApp business am na mais tamit sama sit internet te sama cliente yi ñu ngi partout dans le monde mën naa wax nag ne li ma gën a dimbale fii moom vraiment ràññee nañ ma fi. parce que fii lañ ma gën a njëkk ràññee avant may dem euh, Europe ci lañ ma xamee ma gën ko fësal mm, ndax sama li ma xam ci am ci xam-xam ci communication ak marketing ma utiliser ko ci sama liggéey musóor bi am ci fulla am ci fulla lool nag ndaxte liggéey bu mënti doon jarul xeeb droit laa def liggéey naa ci entreprise def naa marketing def naa lépp mais bi ma décidé def euh, musóor yi même léegi euh, yére yi muy awo bawol dama si ànd ak fulla li ma bëgg pour la première fois à Diourbel of bi biennale bi daf fi ñëw c'était important que ma wane luy fiitu fiitu mooy jigéen bi day jóg fiit boppam dara du ko déranger musóor bi mun na ko yore suba ba ngoon Euh, mu liggéeyi liggéeyu kër gi liggéeyi dem mun na yore table beñeem coro yore fëgg jaayam nekk dirigeante d'entreprise euh, léegi ma def nag documentaire ba ma maam Thiané Diagne mi nga xam ne mu ngi dëkk kër Cheikh macha allah mu am ñaar fukk euh, téeméeri at yu teg ñett wax ñu bu baax ci li nga xam ne mooy fiitu bi loolu nag laa bëgg sama mbokk jigéen yi ñu xam ko suñu culture bi gën a fës ñu gën ko jàpp te xam ne mën nañ ko wane xam lu ñu doon xam fu ñu bokk. Euh, def ko mu gën yaatu ba ci àdduna bi ñoom tamit dañ koy adopté mooy comme léegi et puis ñu mën ci aussi euh, liggéey ndaxte dóor waar moom ñëpp la war te xam nañu jigéen ñi Sénégal moom dóor waar la ñu xam suba ba ngoon léegi nag bu ñu demee nag ba wàcc ah ñu sangu ba set rek tagal ba mu rafet rek génn donc euh, merci beaucoup et di leen ñaan ngeen ñëw xool expo bi gën a jàppale activité culturelle yi fii nii si Diourbel parce que c'est important ndax Diourbel c'est mën naa wax ne mooy capitalu culture mooy capitalu artisanat. yaa aussi ku ñuy wax Abdou Diop moom aussi euh, dafay exposé moom tamit. professeur de mathématiques et sciences physiques au CM Keur Gu Mag de Diourbel en même temps je suis artiste peintre plasticien donc di yëngu ci wàllu art plastique. Ah, en même temps aussi, je fais des bandes dessinées. Je faisais aussi de la caricature euh, au journal Le Cafard Libéré. Uh, plus yeneen uh, kii artistique rek mais principalement léegi maa ngi ci art plastique bi quoi. bon peinture bi mun naa de façon effective euh, maa ngi ko commencé en deux mille euh, deux mille quatre deux mille cinq. deux mille quatre deux mille cinq ci laa commencé di spécialisé wu ci peinture bi mais taxul woon ma si trop nag. mun naa ne à partir de deux 2010 2011 parce que ci laa gënoon am stabilité pour maintenant peindre quoi ci laa ci gën a spécialisé pour le travail quoi donc euh, boobu léegi nag moom vraiment maa ngi ci yëngu carrément quoi sur euh, sur la peinture. Sénégalais xëy na ñu xam njariñu tablo yi mais nag quant à utiliser ko ni mu waree moom jeune ne crois pas parce que xëy na peut-être tableau acquisition bi moo dul yomb ci ñoom. parce que tableau aussi ça un prix boo xamante ni peut-être c'est pas à la portée de tout le monde aussi nit ñi vu le contexte bi ñu nekk jamono yi donc euh, yeneen la ñuy jox priorité par rapport à génne seen xaalis jënd que tableau d'art moo tax euh, utilisation bi moom mun naa ni c'est pas très courant quoi mais néanmoins nag euh, di nga gis ni bëgg nañ ko nañu apprécier mais foofu lu si bari fa yem quoi en quelque waaw loolu moom ñu ngi koy jànkoonteel ñu ngi koy jànkoonteel parce que mun naa ni li mu li ëpp li ma jaay ay tableau su dee toiles yi ay tubaab laa ko jaay aussi ñoom ñoo mën a ñoo la mën a fay prix boo xamante ni dina la satisfaire ci jënd beeg jaay bi yu si bari sénégalais yi bu ñu bu ñu waxaa bu ñu waxee ba àgg ci moom bu ñu la laajee rek ensemble boo laajee boo leen waxee prix ñu daw ñu daw euh, parce que peut-être day xaw dis si ñoom mais nag ni ñuy d'après ni ñuy waxee di nga xam ni ñuy bëgg nañ ko. mais nag euh, dalu nekk à peut-être à la portée de leur bourse wala comme li ma wax sànq rek peut-être dadul doon priorité par rapport a yeneen soxla yi am. bon tableau bi biñ jàkkaarloo nii mi nga wax ci wàllu solidarité numérique solidarité numérique dafa doonoon concept boo xamante ni dama gisoon dans les années 2009 2010 2011 année yooyu euh, le président Abdoulaye Wade daan ko défendre et puis au nom des des Africains quoi au non de l'Afrique danaan défendre euh, concept boobu. mu doon lu ma neex aussi parce que loo xamante ni l' objectif c' était de réduire la fraction numérique entre euh, euh, l' Afrique et mu doon loo xamante ni tey euh, mun na doon quelque chose boo xamante ni day améliorer le niveau de développement de l' Afrique améliorer leur leur condition d' accès au numérique en quelque sorte et aussi améliorer seen utilisation du numérique mu doon loo xamante ni donc day réduire un gap bu nga xamante ni c'est entre Euh, l'Occident et, et, et l'Afrique quoi fii nag maa fi rep euh, maa fi matérialiser ça comme le monde lu bula li nii à peu près mooy comme euh, diversité bi am ci àdduna bi ak aussi benn lien bu war a am entre ñoom c'est comme maintenant li naan un village planétaire mu am benn link boo xamante ni day am entre les hommes et mu doon benn aspect de solidarité basé sur le numéro des rames Euh, des cartes pour téléphone, euh, des disques CD, etc. Quoi. Donc, matériel la composé pour un peu harmoniser, pare aussi exprimer les mots que affaire aux soldats numériques. Quoi. ku mel ne Souleymane Sidibé également mi ngi fa moom tamit gis ngeen bosam def ko accès ci vraiment la beauté africaine la ko gën a accès am na keneen ku ñuy wax aussi du du Thiam moom tamit dafay exposé donc loolu tey moo waraloon euh, centre culturel ànd ceeg ñoom pour vraiment ñoom tamit ñu amal li ñuy wax exposition off exposition bi am fii ren nag c'est une grande première parce que mësuta am Diourbel donc biennale bi biennale commencé ba léegi c'est la première fois que centre culturel abrité euh, exposition off fii ci région bu Diourbel kon loolu dañ koy rafetlu c'est une grande première te dina bokk aussi ci li nga xamante ne nii dina suqaliwaat art bi en tout cas euh, li ñuy wax les arts plastiques fii ci région bu Diourbel. exposition bi nga xamante ne nii moom ngeen gis ci salle bi dafay dugg ci li ñuy wax biennale. information.